Yoff Tongo bon teewaay bi li ko waral moom lenn rek ay ay pêcheurs la yu dëkk Yoff am benn association bu tudd les jeunes pêcheurs de Yoff ah les jeunes pêcheurs de ah. bon ñu am ay affaires yu bare yi ñu doon naqari ñu doon suñu kaw te amuñu woon kenn ñu taxaw bon ñu joxoon si nag pour dimbali suñu moo waral association bi première mooy bu ñu gisee ñu mbokk woon ni bon pêcheurs ak pêcheurs nous sommes tous des familles ah. bu ñu gisee benn pêcheur bu am problème ay jafe difficulté ñu jël ak suñu propre moyen pour dimbali ko loolu moo tax a jóg association bi c'est bon waaw bon vraiment am ñu si nekk waxtaan ne nañu organiser benn benn rawante invité autorité yi nekk Yoff fête bi ni muy demee fête bi fête bi ni muy demee mooy jeunes yi ñoo ko organiser rek pour parce que tamit kenn ku nekk am nga loo xamante boo koy liggéey mën nga si am benn manifestation wax ne ñëpp dañ la si gis loolu moo waral fête bi dañ bëgg bon waa waa waa àddina bi xam ne am na ay pêcheurs yu nekk Yoff yoo xamante ne vraiment am nañu ay initiative yu baax suñu gisee loo xamante ne naqar na leen si géej ñoom ñu jóg doxal ko seen bopp am na seen mbokk mool wax ne am na ay jafe-jafe pour problème financement pour manquer les moteur wala wala gaal wala baas yi nga xamante moom lañ jënd pour napp ñu dimbali ko bu ñu la ko mënee jox pour ay ay prix yoo xamante ne moo gën a yi ko état bi joxe yow boo amee ngay def ay par ndànk par traite loolu daal mooy suñu bit daal moo ñu tax a jóg bëgg nañ daal rawante bi nii ñu ko organisé ren jii incha allah bu ñu yàlla dimbalee bëgg nañ at bu jot ñu organisé si suñu borom mu ñu yàlla dimbalee. suñu teewaay fii euh, dañ doon ay mool pêcheur et dañuy faral di réer si ñu ne nañ former une association pour que ñu mën a dimbalante si suñu biir bu gaal réeree ñu mën a dem seetu ko sans pour autant ku ñu dimbali moo waral ñu doon près de 197 membres ñoo commencé bi ñu commencé léegi matul un an il s'est trouvé bi amee deux mois am na ku réeroon ñu dem seet ka à nos propres de là moo tax ne nañ organiser benn festivité pour man ci am fond yoo xam ne saa yu ñu man ko dem seet sans pour autant parce que ñun moom souvent dañuy arrivé moo tax ñu jóg pour que ñun ñëpp ñu unir pour man di dimbali si. moo nekkoon sa tànk tey. waaw ñëwoon rek fekk sa comme programme bi dañ ko parrainé donc le ministre le maire Abdoulaye Diouf Sarr ñu ñëwoon tey gunge waa Tongo di félicité bu baax les organisateurs li nga xam ne dañ jël lépp teg ko sa loxo ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr ñu kontaan loolu moo ñu ëndal maa ngi ànd ak Ousseynou Thiam qui est un du ministre et responsable donc politique à Yoff ñu ànd ak délégation bi ñëw yëpp donc ñëw ak gunge suñu ministre maa ngi nuyu waa Yoff maa ngi nuyu waa Yoff bu ma maa ngi nuyu waa Yoff nag dama ko teg si làkkoon fàkkoon ñàkkoon làkkoon fàkkoon ñàkkoon rakk topp mag doom topp bàyyi merci beaucoup rakk dafa mag doom dafa bàyyi ma jël nuyoo bi di ko teg ci loxo kilifa yi xamante ne ñoom ñoo fi toogal Yoff toog bu rafet mandargal fi Yoff parce que ku ne Yoff nag xam ne ren ba sor na lool bon nag Yoff maa leen di nuyu bu baax a baax seen doom mi ngi dellu si wuufu si seen boor taxaw ne leen lenn rek moo ko ñor mooy jaamu soxla yoof bu ma nuyoo yoof ba pare maa ngi jël nuyoo bu tedd di ko dox si madame la ministre Ndeye Binta Gassama di ko nuyu di ko dalal di ko dalal sax waxit la parce que moom waa yoof la madame la ministre maa ngi nuyu di la remercier bu baax xam nga lu ma lay remercier may nuyu l'honorable député wax ne maag moom ñoo bokk tool bi maa ngi koy encouragé si liggéeyam di nuyu Jiri Mbacke sama xarit mais surtout di nuyu l'ensemble des acteurs la pêche di jël nuyoo bi di ko teg si loxo général nga joxal ma leen ko ñoom ñëpp ku juum mais xam naa ne yéen ñëpp ñi ngi fi maa ngi leen di nuyu parce que man si yéen la bokk dama ne dama ne dama ne waa Soumbédioune sama dëkku papa Abdoulaye Diouf la bu man ma nee taxaw tey fii ñu naan Ablaye Diouf Sarr ministre de la santé sociale waa Yoff xam nañ li ma wax te du deñ xaalis di génn moo tax ma taxaw ma taxaw fi ma sama maam fii la doon toog di jënd gaal ak bay du teew bu jëndee ba pare def marché gal jaay bu jaayee ba pare bu ñëwee ma nekk dama bëgg ab kaye mu jox ma ma jënd kon nag bu ma tekkee xaalisu jën moo tax ma tekk képp ku liggéey si jën dama lay fonk wóolu gëm la parce que man kat xaalisu jën moo tax ma taxaw fii dama doon nettali sànq ne sama maam mam saw jéen ñëw na bot ma fii si tefes ak tëmbool ma nekkam liir xale bu ndaw muy jël ay jëram jënd ba pare dem glaceeru eh, kër Baye Baye Omar Faye Seck fàtte ma si suuf gaal yi ba mu glaceer ba pare ñu ko waa mais yow ana Ablaye mi mu naa fàtte naa bon rek man si géej gi laa bokk si yéen laa bokk li ma am fii laa ko jëlee lépp lu ma am tam fii laa koy indiwaat ma ne nag am na ñaari jàmbaar parce que nag ku gërëmul nit doo gërëm sa borom maa ngi leen di gërëm mooy euh, Ablaye Barézy ak euh, Jabel Begere gars yi maa ngi leen di remercier bu baax maa ngi leen di remercier gis naa li ngeen may liggéeyal gis naa engagement yi ngeen di jël gis naa risque même yi ngeen di jël pour jàppale ma mais doo leen ma gën a gore bu maa ngi leen di remercier bu baax may wax à la jeunesse de Yoff pour wax leen ne bu ma taxawee am fit parce dama xam ne yéenay sama doole bu ma taxawee ñuy laaj ma ne damay laaj parce que dama wóor na da ngeen nekk sama gannaaw moo tax may terminer benn message moom lay terminé ma ne joo bi ngeen ma jox tey joo bi ngeen ma jox tey dama leen di wax ne danaa jow ànd ak yéen ñu dem Ndakaaru incha maa ngi leen di remercier bu baax